maa ngi ak sama mbokkum Baye Fall Baye Fall ñu ngi lay uh, masaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngeen ñàkk seen way jur bu jigéen uh, nee naa koo xamante ni dafa uufoon njaboot xàmmeewul ñiy liggéey ak waali ak ñi nga xamante ni ñoom la jur ak juru leen uh, tey nga ñàkk koo xamante ni sori la ci ki nga xamante ni moom ngeen liggéeyal naka ngeen ko dundee. waaw avant tout di sant yàlla rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di nuyu Sénégal mbokk xarit ak soppe ñëpp gis taxawaayu ñëpp nag ci waali ndax waali doomu réew mi la mm-hmm. te ki mu ñàkk ñun ñëpp ko bokk ñàkk muy sunu mm-hmm. wayjur bu jigéen boobu di ñaan yàlla saa borom xare ko aljanay si ak képp kum fa fekk ak ña ko fay fekk ci barke Seydina Muhammad di ñaan yàlla yàlla teg loxo njaboot gi may waali xolu muñ mm-hmm. xam donc tey moom bisu njàqare la xam naa wax du bari te day xaw a metti waaye bon saa borom moom lu ko saf mu def. Mhm. waaw lu ko saf rek mu def. Mhm. te nag kenn sañu ko ni pour pourquoi comme ni mhm. ko Papa daan waxee donc yàlla na ko saa borom yeesal yërmande ci kawam. Euh, mais mu doon noon mu doon nit koo xamante ni nit ku baax la nit ku discret tey Wally ñàkk koo xamante ni euh, dafa ñàkk way juróom bu góor ñàkk magam bu jigéen ñàkk ki nga xamante ni moo nekkoon wéeru waaye moo doonoon léppam est-ce que dina yomb ci moom euh, ku ne xam na ni Baye Fall la. yàlla. moom du fi jug mhm. te buy sàkk du tàggoo mhm. buy jëlit du tàggoo te ñëpp dañuy dem moo fi des ci ndum mhm. kon moom rek a fi des ah kay dina metti nag waaye yàlla nu yàlla taas ci barkeem ndax li mu am nii ku ne bëgg na ko boo dëddoo taxawaay beeg ñaan géeg sell géeg lépp waaye yàlla moom du fi jug waaw man bis tey Euh, lu ma jaale woon sama soxna comme ni ma ko waxee tey la am un an kon suñu boroom lu ko sax mu def bi muy ñëw di ma jaale si fooguma woon ni at mi du ko fi fekk rawante at lañu ñu rawante donc saa boroom lu ko sax mu def ñu gis taxawaayu artistes yi monde bis ñoom ñëpp ku nekk ñëw apporter soutien ki nga xamante ni moo di magam wala rakkam ci balaa Ballago sekk mu mel ni euh, lii dafa war a sax continuer dàkk euh, ci millier bi nga xamante ni moom la ñu ne. loolu moom xam naa ni ci beneen jamono danañ ci wax waaye li am solo ba am solo mooy. Mhm. tey bisu njàqare la bisu jaaxle la bisu ñaan la comprendre nga. Mhm. ndax wolof dafa am lu mu lépp. Mhm. dani loo xamante ni bii boo ko déggee ci sa nawle mu métti la te kenn du la fa jiit mhm. fexeel saxal loolu ca moom mhm. sa très important donc leneen li ci des nag saa borom du fi jóg te moo fi ne sëñ Fallou jaajëf waaw fu mu ne moom wax day metti ndax tey bisu njàqare la bisu ñàkk la te bisu ñàkk nag moom dafa xaw day waar te xam nga waali nag wax dëgg yàlla dañ ko war a ñaanal xolu muñ parce que ñaanal ko njaboot gi <coughs> waaw sëñ Fallou yàlla baax na waaw. mooy li ma wax rek mu way jur la man suma xarit la woon ndax daf daan wax ne may artiste am. yow ma la bi ma jaale see sama soxna tey la def at. kon donc loolu sama tuddi dénk ma fay kaddu. wala ñàkk naa mi yéen tamit waaram daan ñàkk ngeen. ah waa. bu nu waxee ñàkk nañ sax day xaw a day doy waar waaye ndax yàlla du fi jug te ku ko am am nga lépp mhm. yàlla na nu yàlla taxaw may waale xolu muñ jërëjëf Euh, salaamaaleykum ami fidèle internautes yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi xel ci site internet yi nga xamante ni ñoo fi nekk yëpp euh, gannaaw ba nga xamante ni denc nañ sunu mama jaaga di ko ñaanal ci suuf sama tëdd yàlla na ko gënal fu mu jógee yàlla na Serigne Touba wala képp koo xamante ni rek kilifa gu baax nga daat koy teeru foofu nga xamante ni euh, fa lañ ko denc ci këram googu ñu toog ak sunu mag sunu xarit doon koo xamante ni kenn la ci wàll sàmba Samba ñu ngi lay ziar baax a baax. ñu bu baax a baax grand naka mu. maa yaa ñu ngi lay jaale ki nga xam ne moo fi jóge Euh, di nuyu Sénégalais yëpp di képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre di ñu wax ni yàlla moom xam nga waneeti na boppam. Mhm. te bu soxlaa ko soxla da ngay ñàkk. Mhm. ndax nag euh, dee la njëkk a sàkk ka dund. Mhm. donc moom xam nga ci moom la nu jógee ci moom la ñuy dellu. donc ñuy jaale sénégale yëpp ndax nag tiis bi moom ci kaw ñëpp la dal. jaaga suñu yaay la woon suñu lépp la waale nekk suñu frère nekk suñu xarit nekk suñu cousin. xam nga loolu moo tax sunu teewaay fii war na comme ni mu waree ñëpp waaw noonu la yëgee euh, li nga xamante ni moo di génn ak àdduna jaaga naka nga ko dundee euh, te Wally doon sa cousin waaw waaw waaw métti métti ndax ndax nag moom dee moom moo nekk loo xam ne xam nga dafay am te kenn yéenewu ko nit xam nga tey ku ci nekk rek boo ko jëkkee dégg sa réaction mooy xam nga foog nga choqué quoi xam nga mais nag rafet na na njortu ci moom ndax nag li ñëpp seede moom mooy moom mooy dëgg mooy jigéen la joo xam ne jigéen ju laabir la woon jigéen ju bëggoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ñu ngi koy ñaanal yàlla na yi na yàlla yërëm xam nga suuf ci kawam xam nga mu jëm ci àjjana yi gën a kawe ak képp ku mu fa fekk mhm. waaw. Euh, mu nekkoon euh, jigéen boo xamante ni exemplaire la woon doon jigéen boo xamante ni lépp ci sutur loo ko doon def euh, tey man naa ni jigéen ñu bari war nañu jël exemple soxna si nga xamante ni moo nekkoon soxna jaaga mm. waaw waaw waaw surtout loolu ndax nag moom dëgg moom mooy njëkk mooy mujj mhm. te moom teel na xam loolu teel a comprendre loolu ba tax mu teel koo dund mhm. yar ci ay njabootam ah mu fexe na ba njabootam xam nga mu xirtal leen ci sunu borom xam ni ci moom la ñu ci moom la ñuy dellu donc euh, dañ koy ñaanal rek euh, yàlla na suuf oyof ci kawam. Mhm. xam nga ndax nag ay njort yu rafet la ñu am ci moom. Mhm. muy sunu mama jaaga mhm. nekk jigéen ju baax ndax nag euh, nit moom bu sa bu say mbokk buñ la gërëmee say famille gërëm la say jëkkër ji nga xam ne moom la la yàlla booleel gërëm la. Ah, Sénégal yëpp dañuy dañuy rafet njortu ci yow. Mhm. donc ñu ngi koy ñaanal waaw yàlla na suuf woyof ci kawam. Euh, moom mi nga xamante ni ci espace bu ndaw ñàkk na ki nga xamante ni moo di way juróom bu góor euh, ñàkk magam bu jigéen boo xamante ni ci moom euh, rëkk dafa sosoon ci moom mu doonoon xaritam ñàkk way juróom bu jigéen bi nga xamante ni moo doonoon waaye moo doonoon léppam waaw waaw di ko wax ni di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral rek mm-hmm. ndax nag moom dee moom xam nga dafa nekk loo xam ne du jaas mm-hmm. te yàlla mooy xool la ko neex mu def ko te buy def du tàggu mm-hmm. xam nga buy jël du tàggu buy joxe du tàggu donc dañu dañu dañu dañu koy ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ah, ah, yeen bi oyof ci moom. donc maa ngi koy jaale bu baax a baax a baax a baax a baax a baax euh, suma famille bi nga xam ne moom laa moom la moom laa jugee muy suma famille suma famille kër yaay ak suma famille kër papa maanaam rek suma yaay gut si laa muy suma turandoo di sama papa di suma lépp ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi jël njaal bi teg ko suma loxo ma koy ma koy jox waaw ah, moo ndax moom suñu frère la suñu cousin la donc ñu ngi koy ñaanal yàlla na yéen bi gën a oyof ci moom waaw waaw jaajëf jaajëf tous les Sénégalais suñu yaay jaaga moom yaayu Sénégal gi yëpp la woon. Mm-hmm. ndax gis nañ ni ba mu ba sunu borom wàccee ndogal gi ci kawam ba léegi waaw mel na ni ku nekk danga ko jël daal mm-hmm. ñu ngi koy jaale Sénégalais yëpp mm-hmm. waaw. Ah, euh, nga nga nga nekk koo xamante ni euh, xam nañ laag waali euh, sunu borom dogal li nga xamante ni moom la dogal si moom mu daal di ñàkk way juróom bu jigéen bi nga ko dundee bi ko yëgee naka nga ko dundee. waaw muy nakar rek muy nakar si si si si ñëpp parce que waale mën naa ne moom rek ñàkkul ndax waale am na ay rak am na am na ay ay ñoo xamante ni moom moo leen féete mag mm-hmm. ñooñu ñëpp dañoo ñàkk ñun ñii ñëpp ñàkk parce que yaayu waali yaayu artiste yëpp la mm-hmm. yaayu Sénégal yëpp la mm-hmm. waaw ñu ngi koy masawu di ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ moom ak i rakkam ak ñëpp ñu mu ko bokkal yàlla may ko xolu muñ te sunu waajur bi fi bàyyee ko yàlla yërëm ko xaari ko na ci barke yonent bi nekk ndaw loo xamante ni mi ngi ci yoonam di dem euh, suñu borom teg ko nag ay nattu ñu nangu nattu yi nga xamante ni moom la ko suñu borom teg euh, euh, la mu sosoon ci moom rek suñu borom jël ki nga xamante ni moo nekkoon wéeru waayam jël léppam lan moo mën a tax Wally retrouver waat force bi nga la suñu borom defoon ci moom waaw xam nga olof Ndiaye danaan siiw du jaami borom mm-hmm. amaana Wally moo siiw rek yàlla teg natt boobu mu ko teg teg na ko jullit yu bari ay moroomam ñu dul jeex ñu ko gën a méttile am na ñoo xamante ni ba ñu juddoo fekk ñu fi seen ndey fekk ñu fi seen baay am na ay rakam yoo xamante ni seen yaay fekkeewul njariñam moom yaayam lekk na ci njariñam liggéey na jox yaay mu lekk am na ay rakam yoo xamante ni seen yaay fekkeewul seen njariñ ñoo ko gën a méttile waaw kon dañ koy ñaanal rek yàlla may ko xolu muñ te yàlla bu la xañee rek moom moo lay jox. Mhm. moo lay sàmmal boppam di ñaan tamit yàlla sàmm ko. Mhm. yàlla wétali ko yàlla aar ko yiir ko làkk ko it fu yàq eggul. Mhm. ci warke yonent bi. Euh, ni euh, ci euh, bërëb yu mel nii bu amee dañuy gis artistes yëpp booloo doon benn nekk doon benn. di yëkkateendoo di dóorandoo mu mel ni problème yi ñuy wax ci biir artistes yi amul ndax gis nañ tey ah, képp koo xamante ni waykat nga. nga nga waale nga ñàkk koo jege gis nañ nga def teewaay mu doon loo xamante ni lii la Sénégal nam waaw xam nga dé dee moom dafa dafa nekk loo xamante ni euh, moo moo mooy njëkk moo mooy mooy mooy mun naa ne mooy njëkk mooy mujj mm-hmm. waa dee moom leneen la mm-hmm. te bis ak loolu ça n'a rien yëpp jàmm lañu yéenante artistes yëpp bu seen moroom amee nakar day mel ni ñoom ñoo ko moom mm-hmm. li ci des nag wàllu showbiz la rek loolu ça n'a ak li xew boo gisee artistes yëpp weekend bi ak weekend bi di ñëw dëkk bi dafa mel ni waaw da ngay da ngay sentir ni que am na am na naqar bu am ci dëkk bi amul benn artiste bu am xolu jouer amul benn nit bu am xol pour génn kon nga xamante ni solidarité bi mi ngi am waaw ñuy ñaan yàlla mu gën a dëgër te ñu gën ko rafetal te xam ne àdduna amul solo lépp si natal lay mujjoo te lépp fii rek lay mujjoo nañ ko rafetal rafetal diggante yi rafetal nekkin bi même bu fekkee sax euh, concurrence sax day am ci diggante artiste ak artiste ñu rafetal ko mm. ndax Euh, lii rek misaal la ku ndeyam génn àdduna mhm. nga yërëm ko mhm. wax ci lu rafet mhm. def ci lu rafet war naa tax ñëpp rafetal seen diggante te xam ne àdduna amul solo hmm. yàlla na jàmm yàgg Sénégal te lu mel ni yàlla na fa gëj merci beaucoup ami fidèle internet euh, di santaat yàlla bu baax julli ci dent bi di ñaanal sunu mama jaaga fa mu tëdd ca suufu yoof yàlla na ko euh, yàlla yërëm xare ko ci àjjina fil daw si dem ba ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di la mastaw di la jàll bokk waaw ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di nuyu baax baax yëpp yéen ñëpp ah, ci seen teewaay aussi ci affaire bi mhm, mhm. Euh, tey sa frère Wally Ballago Seck ñàkk koo xamante ni moo nekkoon wéeru waaye moo nekkoon léppam ci àddunaam bi nga yëgee nouvelle bi naka nga ko dundee waaw métti rek ma ko yëg boobu maa ngi Paris donc mu fekk ma foofu may juste di génn di am fu ma doon dem tombé ñu wax ma ko affaire bi doy waar ma xool comme sam bopp ah que ku ne xam ne ni yaay dafa fort. Mm-hmm. koo xam ni say parents sa sa sa sa waajur bu góor dafa dem sa mag dem. Mm-hmm. donc mu des sa yaay ñu waar la ne la dem na. Mm-hmm. képp ku am yaay rek sa xel war na sa sa xol war na tooy war nga aussi am yërmande par rapport ak ak ak situation bi demee. Mhm. mais Wally nekk sa frère doon koo xamante ni sunu borom def na li muy def ci moom ba ba noppi tey bu fekkee am na yenn kàddu yoo koy dénk lan la parce que xale la mais aussi tamit nekk ci yoon mu ñàkk comme yaa ko wax sànq mu ñàkk papaam ñàkk magam bu jigéen ñàkk koo xamante ni moom rek la dese woon ci àdduna doonoon wéeruwaayam. li ma koy wax rek mooy li ma ko bëggoon wax moom laa fekk tey bi ma koy jaale sànq euh, mu am comportement boobu. Mhm. parce boobu euh, lii xewagul woon maanaam maanaam maanaam euh, maa roobaguñu woon maanaam dama koy dénk mu muñ parce que léegi mën naan léegi mooy taaw moo uuf njaboot gi e, moom bu dëgërul rek ñeneen ñi fa nekk ñëpp duñu sëngeem et ni ma ko gisee nii vraiment ak ni muy accueillir nit ñi vraiment doon bàyyi faal xam ne kat ni góor la tey lu metti góor lay dal mu mu mu mu kii ko mën naa ne doon ñëw sax di jooy mbaa ñëw di di xëy na am boobu yërmande sax moom moo leen di dal. Mhm. waaw man bi ma naan bi ma naan Demba Guissé gis naa lépp waaw yow moom vraiment kontaan naa ci yow gis naa lépp man sax moom ma gën a ma gën a yëngu. waaw donc nga wax xam ni xëy na euh, euh, gëm na yàlla. Mhm. lii am parce que ku xam na ni vraiment. waaw na trop mais daal xam naa ne moom nit bu dëgër la quoi. Mhm. ndax mu ngi koy gérer quoi. Mhm. Mhm. Euh, lan nga ci jàngaat en tant que artiste parce que gis nañ euh, monde musical bi yëpp ak képp koo xamante euh, daanaka yaa ngi ama ak rek waale ñi nga xamante ni sax waale xam na leen de près ou de loin ñëw nañ ci bés bii nga xamante ni bésu naqar la teew. waaw lii mooy wane rek que na lépp na lépp rafet. gis nga bu rafetee yu mel nii boo fiy ñëw doo am kersa. doo am gàcce bu rafetee da ngay ñëw maanaam firi. Mhm. parce que àddina yàggul. Mhm. et ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu def. Mhm. muy waali muy keneen ak keneen ak keneen ñëpp ñoo bokk lu ñu def na rafet rek. man de yàlla dimbali na ma ba lii may def ma bokk ak ñoom maa ngi ciy rafetal. xam naa ni suba bu ma fi yàlla jëlee xëy na duñ ma duñ ma duñ ma duñ ma duñ ma seedal yenn seede yi parce que da àddina yàggul. te lii yëpp afi yëfi àddina la rek. Mhm. xam nga dafay jàll léegi quoi na rafet ñun ñoo far ñoo bokk ñuy def. Mhm. ñun ñoo far te vraiment ñu far nag dañoo war di paasante. dañoo war di paasante. Mhm.